commission urbaine habitat. Cadre de vie et la promotion d'équité l'équité territoriale au conseil des collectivités territoriales. voilà tey tey dañu ñëwoon tey représenter représenté fii soxna soxna Aminata Mbengue Ndiaye bu fekk représenté soxna Aminata Mbengue Ndiaye ci ndaje bi ministre bi euh, El Hadj Omar Youm doon ko organisé ci réforme yi ñu war a def ci donc le transport terrestre muy réforme yu am solo parce que ñun rafetlu nun ni démarche bi Omar Diom érage Omar Diom commencé parce que euh, lii mooy boole ci mbooloo mi liggéey boo def da ngay woo acteur yëpp nga dajeeg ñoom ñu leen waxtaan tënk dara loolu mooy tax loolu continuer te loolu la def tey donc double planification bi ñuy wax up down down down up down down up moom la def maanaam fexe ba ñi ci base bi acteur yëpp yëpp yëpp te ñu di waxtaan waxtaan bu rafet ñëpp rafetlu nañ ko du cas que rek c'est une première aussi du cas que bu ñu génnee ci fii itam nit ñi daan ànd ndaxte en général ñu bëree na ndoo duñ ci sawar ndax yàqkat yi bëgguñu nit ñi ànd waaye lii lii mu leen wax tey ci transport bi li mu leen wax ci sécurité transport bi lii mu leen wax ci oto yi loolu ku ko dégg xam ni lii lu rafet la donc ñu ngi koy ñu ngi ciy ànd ak moom ñu nekk ci.

di ko gërëm aussi turu au conseil yëpp di ko turu ci sama turu sama turu bopp Amadou Fall nay la jërëjëf waaw tey wax nañ ci transport bi wax nañ ci yëpp mais li gën a am solo pour man mooy mooy mooy les routes il faut ñu waxtaan ci route bi buñ paree aussi il faut ñu wax ci chemin de fer bi buñ paree il faut ñu wax ci euh, domaine maritime bi buñ paree il faut ñu wax sax métro ci suuf ci suuf il faut que loolu lépp ñu développé ko parce que loolu moo tax nit ñi di mën a dem ak dikk loolu tax ñu mën a sauvegarder